nag boo ko gisee doo ne anam bër ba kin sees la boo ko tuddee doole boo ko ci làmb boo ko tuddee laa loxo daal dal gémmiñ champion la ndaanaan la kilifa ci la làmb kilifa la ci làmb kooku mooy kan le géant de Guédiawaye kooku mooy kan immeuble daal naa la bu waxee rek ñu xam ne Guédiawaye ñëpp taxaw na wulli wulli waat dama leen nuyu ay damaa juum léeru jaan non dama lay wax xoolal ko gisee sa émission neex wala ngay juum nga juumee ko te xaj waaye doo nekk ma ay ay ay wulli doo ñëw Guédiawaye pare na wax Guédiawaye bi naan ay non non dama lay expliquer rek sooy wax sa wax nga waxe ko neneen waaye ñëw fii naan da ngay juum. ah damaa juum. waaw dama lay wax rek. damaa juum yow dañu waxee ay kon ba pare ne rek naan wuli. juum rek ah moom la daal si nag. ñooy dégg voilà damaa juum. voilà muy noonu internet yi damaa juum ah tuddee ko wuli wuli waat liiru la liiru jaan war maa juum. Eh, ay waay histoire bi du jeex damaa juum. soo bëggee sa émission yàq tudd ko fi tuddaat ko nga xool. juum nga ñaari yoon na ñett nga xool su ñettee doo amaat. liiru damaa juum ok. voilà Lirou maa ngi lay maa ngi lay fay Ndeye Mbacke di nuyu waa Leewtoo TV di nuyu Mansour di nuy sama jigéen bu ñaawal ba bu ci seen patron muy Aïda voilà di tak waaw Aïda waaw sama jigéen sama xarit di nuyu waa Guédiawaye gépp ak fi ma fekk yaa ma fekk place sama xarit sama doomu ndey muy Modou Mbacke baax yaay ko téye voilà di nuyu waa Guédiawaye du nuyu monsieur le maire Aliou Sall Sall bu budu gede di nuyu sama doomu ndey ah, Dieye Sène ah di nuyu Fouta Baydi Ba hmm, Lat Diop directeur. rek doomu Guédiawaye kon nag dañu daan xuus rek ci biir mm. émission bi niiru mm. fan yee passé yàggul dara ñu gis benn vidéo boo defoon ak benn guerre yaakaar naa ne na sax million de ñëpp gis ko problème bi nga am ak guerre lan moo ko waral. man guerre. mooy waa. Euh, euh, waaw journaliste ba. ba nga doon xuloo waaw. non du question xuloo loolu erreur la woon rek jeex na jeex na dafa am benn euh, kii bu kii la nu mu ko waxee comme nii rek interview nga daal di ñëw yar woo tegg rek. waaw euh, drapé rek ma xam ba yóbbaale ma ca drapé bi rek mu nekkoon erreur loolu fàtte naa ko jeex na bu yàgg nga xam mooy man erreur waruma juum waruma ndax man maay man man maay man maay adduna bi maay diaspora bi loolu yàlla ko def voilà. loolu erreur la woon rek juum la woon rek passé na passé na ndax boobu ba léegi parce que mën naa wax ne looloo taxaw bi nga maa gis ma wax ak jigéen waaye nag yéen da a bokk suñun te da nekk ci làmb ji tax mën ngeen seen liggéey tubaarikàlla macha allah fexe nuróo ma saytaane daal yow vraiment nuróo ma ko xaw ma nag ndax la première fois ma a jàkkaarloo yow nuróo ma saytaane waaw sa musóor génne moom doy na voilà affaire bi ñoo ko yor ñoo koy liggéey ñoo ci war a respect. voilà bu nit nit gisee war ñoo naw. war ñun la suñu kaddu suñu jëfin suñu solin. lépp du ñun la yaakaar naa ne émission rek la. nañ yem ci émission bi. bu mm-hmm. jàllee ñu def leneen. voilà nit ku nekk yaa moom sa yaa moom yaa may sa morom mm-hmm. respect. yow la man la. voilà fii dañuy toog di wax waaye àdduna bi yëpp ñoo ngi seetaan. ñun jigéen nañ bàyyi xel bu baax ci lu ñuy def bañ ci jógee. te ëllëg da ngeen am jëkkër. merci ëllëg da ngeen a war a am doom. da ngeen a war a xool waxin bi muy xaw a tegg ne ah di yaru c'est normal waaye tey am na yenn wax yoo xam ne ak ay sol yoo xam ne baaxul ci image bi ndax ëllëg da ngeen di am jëkkër am ay doom da leen euh, defar kii bi ah euh, langage bi waaw da leen defar langage bi rek voilà c'est tout. sa diggante Mo Gates daa bëgg. waaw Mo Gates c'est mon frère. tey li mu def dafa nice. tey di su moom euh, dafa amateur lamb la dafa bëgg lamb la tey Mo Gates. da doon woo di ay mbër di leen invité di ñu yóbbu Amérique di leen invité comprendre ñu defal ay trang comprendre léegi nag danga xam ko loolu la mu ñëw dugg ci làmb ji jàppale gars yi ndax amateur la dafa bëgg làmb dafa dund làmb Sénégal la dëkk moo waral mu taxawal ay combat taxawal na presque lu mat ay cinq combat ah. xaw ma six ëpp na six voilà te pareegul ah ah, ah pareegul am na yeneen combat yi muy dox te noonu nag laa ko ne waaw di woo mbër yi nga leen defal teranga waaw def ni initiative voilà ba pare olof ñaar dafa ne waaw ku lay may jëm chaque jour. waaw mu jàngaloon nañu nappee moo ko gën. dëgg te boo géej li mu def nii yaakaar naa. dë dë dë dëgg la dëgg la dëgg la dëgg waaw waaw xale la te jeune la li mu def dafa nice nan ko ñaanal yàlla la fal ko cek doomu réew mi la jëloon lu mënoon na jël xaalis tam yamale ko ci américain yi waaye def ko du ko dugal ci biir Sénégal man tey sama portable bi ma yor ni iPhone moom ko jëndal c'est mon ami c'est mon petit frère ah oui loolu mooy Sénégal loolu mooy àdduna sunu préféré rek mu taxawal combat bi nga xam ne àdduna bi ñëpp dañ ko doon xaar. waaw diggante nga xam te ne mooy Ketchup. waaw moo moom kii tamit taxaw na. Ketchup ak ci alaaji taxaw na. ñoo ñi ne bëgg nañ ndax sa loxo dara seen gémmiñ. Mm. mu dëkk wulli wulliwaat ak diiru jaar. waaw dëkk bi doj. waaw naka ngeen préparé ko maa ngi koy pare fi mu ne maa ngi si damay waajal sunu jàng yi ba jàng yi jeex jàng yi altine la incha allah rabi maa ngi entraîné gisoo ni may ñaqee non maa ngi entraîné booy may ñu ma jàmm man booy yi ñoo gën a bëgg sama combat ku ci mel ni Balla Gaye 2 ñoom Alioune Seye bu duñ ma may jàmm entraînement bu dégg ba ci sama booy yi ah ñoom Macha ñoom Dundu vraiment booy yi ak ñoom caat bu waaloo xale yi duñ ma may jàmm daal. voilà waaye yàlla dañ ma c'est que dañ ma bëgg rek ndeysaan. dañ ma bëgg ah, may revanche. Ah, ah, fetal yaa ngi may yàlla yow yaa ngi may yàlla waxoo dëgg c'est pas vrai waxoo dëgg ah, te laaj bi yëkkati loxo waaw damay laaj te laaj bi yëkkati loxo kalan dóor ba mu daw génn saako yi dañ bëgg a xam yow yow yaa ngi may yàlla ba kalan dóor ba mu génn saako yi kalan dóor waaw non damay laaj kalan dóor kan kan la arbitre yëkkati loxo nañ xool la damay laaj kan la arbitre yëkkati loxo man daal dama lay laaj kan la arbitre yëkkati loxo laa la bëgg yow kan la arbitre yëkkati loxo maa la waaw dama lay laaj kan la arbitre yëkkati loxo victoire noo ko amee baax na rek na arbitre yëkkati sa loxo man maa la wax loolu dafa yomb ah non non du yomb dama war a def def naa ko gàcce nga laa ma waa Gambia toj naa Gambie ñu waa Gambie bëgg ma ku ci mel ni Fallou ak Djibril Si pa Djibril Adja Gass borom Angleterre dëkk ca Gambia waa Gambie gépp ak ñi sa bëgg Balla Gaye bu soo paa sama paa wax xam ne Balla Gaye rek lay nooyee dafa bëgg Balla Balla Gaye ci Gambie bi. nan ah. Balla Gaye. sama rakk la man ñoom ñëpp sama rakk la ma. wuli wuli waaw ah, da nga mun doo rakam. doo mën a doo dara. moo ko am sequma ak moom dara lan laa seq ak moom sequma ak moom dara lan la ko raw man la yow lan la ma defoon man nee dóor yi la dóor yan dóor la ma dóor waaye yan la ma dóor waxoo dëgg c'est pas vrai waxoo gis nga yow saytaane nga buñ leer dama doon wax doo saytaane waaye saytaane <laughs> non saytaane nga ndax lii nga wax saytaane yow amoo koor yow xaw ma da ngaa wóor xaw ma wóor waaye amoo koor nuru woo ko wóor nag yow nuru woo ko wóor sa musóor di daggatu musóor di nga xaw ma noo ko defee maanaam damaa woor. ba kenn doo ko dëgg nag. non non non waxoo dëgg c'est pas vrai. li nga wax du dëgg. wuli daal dóor na dóor la waxoo dëgg c'est pas vrai. su waxee dóor na waxoo dëgg soo ko waxee yëg waxoo dëgg. waaw d'accord léegi yaa ngi préparé comme maam. maa pour fay dóor yi la dóoroon. ma xool dama lay bu ma tooñ nga ma ay dóor yi mu la dóoroon. bu la ma bàyyi wax la ay dóor yi mu yéen dóor la ma dóor. ah yéen système laa bëreeg moom bopp laa bëreeg moom maa ngi. système waaw day encaissé nga. waaw lan la encaissé. ay pour. yooyu yaa ngi ñeme yàlla fan la encaissé. yow ma ci ginnaaw saako yi la ma dóor yow ci ginnaaw saak bi dama dooree. fa la dooree. waaw te du wax ma door ma ci ginnaaw. kanam parce que Moussa am forme bu ne day wane forme non non amul forme man man damay entraîné man xam nga lan damay entraîné ah, ma kii Moussa man damay entraîné ma damay entraîné c'est bon man damay entraîné. Moussa ñaar si la fi mu ne nii wàññi naa nag waaw wàññi naa fi mu ne temps yi par benn rek laay waaw non xam nga rek jàng yee tax ñun te combat dama ko respecté de. yaa ngi ko combat dama ko bëgg dama am sama benn non non ni damaa nekk si jàng xam nga jàng yi altine bi la ñëw ñëwoon pare. combat bi ñëwagul combat bi août la mois de août. waaw léegi lañ koy préparé kooku ma daa xam sa yoon nekku ci man maay bëre. man maay bëre sa yoon nekku xaalis su ñëwee maa koy encaissé sa yoon nekku ci. waaye doori bu ñëwee yaa koy encaissé aussi. doori ñëw yan doori laay encaissé. Ah, doori wul lii. wul moo tax police yi dañ bul ma xoolal ba ma lay wax na doo li doo liiru jàll ki ngay ba boobu bis mooy yàlla dimbale ba nu jàkkaarloo moom su boobaa di ngeen xam lépp dëgg la ko ko respecté ko bëgg ma ko teg dama am ñoo xam ne mu ngaa bëgg na bëgg. Maadou Sow sama waa ji dafa sama combat la. Maadou Sow bu dem ma faal Baye Fall bu mag ba. Hmm? Père Babou at boo Diop ak Racine ak Boos Niang comprendre nga ak euh, euh, kii directeur moo Ndiaye Serigne Matlem. voilà ndax ñi ngay jàppale ñu xam combat kenn talu la yaa man man xoolal dama lay expliquer benn affaire man lu ma sóob bi mën naa kaan naan man garmi laa bete bete laa damaa mën bis man daanaan laa ku lu fàttalin yow xamoo loolu nag xamoo ma moo tax su la neexee nag nga nekk fii ratatat naan ay dóor. xamoo dara ay saytaar rek ngeen def nii rek ngeen def. mais buñ gisee ay dóor. fii dóor amu fii fii dóor amu fan nga ko da nga fay gis dóor. ah dóor ba fa am ca Gambia ah, <laughs> du Sénégal la koy wedde du fii la ñuy bëri arène nationale. yàlla nañ ci yàlla yóbboo jàmm waaw yàlla nañ ci yàlla yóbboo jàmm dégg nga da ngaa woor lu ma yëngal dama yaa may tàngaloo. looy lay wax tey bi damaa woor. aw ma dara lu ma koy wax na dem waaj combat man maa ngi waaj. voilà amul dara lu ma koy wax. sa yoon nekku ci lu ma koy waaj ndax saytaane nga. sa yoon nekku ci man am naa leen lu ma gëm maa ngi gërëm sama sëriñ yu baax yi nga xam dañ maa bëgg te yàlla tax voilà. combat da nga koy préparé Sénégal wala xaw ma sa yoon nekku ci fa ma koy pare ndax saytaane nga lu may def duma la ko wax. ndax saytaane nga li may def duma la ko wax sa yoon nekku ci li may def sa yoon nekku ci li may def. sa yoon nekku ci li may ndax saytaane ndax soo taxee ndax damay man ki may dóor juddoogul man ki may dóor juddoogul waaw non non saytaane nga. saytaane nga c'est pas vrai c'est faux c'est faux c'est faux yow saytaane nga yow man nduruma ku ñuy dóor voilà. ma nuruma ku ñuy dóor. sa yoon nekk ku may entraîné sa yoon nekk ku may entraîné. léegi waxoon sa sama fan si na ma man xam naa waa diaspora bi sama xarit yi sama am di jàmm bëgg maa ngi leen di gërëm di leen sant am te naa ko waaj seen xol dina sedd billahi wallahi taala seen xol dina sedd man rek la <laughs> ilaha illallah maa ngi magu Balla Gaye 2. yow rek nga am combat. waaw la dëggee 2. ñu ko Alioune Seye de ak guy gi ñëpp may seen mag yàlla na yàlla defal jàmm ak ñu ay Pape Mbaye xale yëpp Marley. bu takkil daw sama question bi nii. non non dama xoolal ban question. loolu moo for ci wéeru bëy da ngay waaj takk ñaareel. kan man mi da nga koo dégg foo ko déggee. ci wéeru bëy foo ko déggee. ci wéeru bëy foo ko déggee li may wax sa saytaan rek yaa ngi ni li may wax sa saytaan da ngaa xam bu may takk. benn xale bu xees daal laa dégg moom ngay la ba di ko waaj takk ñaareel. xale bu xees. xanaa yow la. du ma ma xale bu xees. yow foo dégg loolu ak ku lax loolu. bàyyi lu yu bëy bàyyi lu yu bëy man tal naa leneen te am naa leneen lu ma doy mooy wax tekk ñaaral lu may ragal man may góor yàlla di bàyyi fa war a am ñaar ba ñett ba ñeent dinaa takk nag waaye du léegi takk gum dinaa takk nag. bu xees bi nag bu xees bi ngeen waaw ah, bu xees da nga koo xam yow. ah bu xees bi daal soo nee bu xees yow da nga xam bu xees. non dama lay laaj da nga xam da nga xam. xam naa ko kay kan la fu mu dëkk ak fu mu nekk wax ma ko. du ma ko wax ah déedéet. yow mi ko waxoon waxoon waxoon li may wax ci saytaane nga. barki Serigne Saliou Mbacké saytaan man mënoo tas sama kër tuuti nga tas sama kër mu naan ma ah, xale bu xees bi ngay waaj ban xale la. ak fu xale bi dëkk. su ma génnee fii ñu fase la. mu génne ko dañu lay bàyyi na ko weddi fii nga taxaw weddi ko. kan ma may bàyyi. xale bu xees bi xanaa. waaw ban xale bu xees. wax ma ko ban xale bu xees la ak fu xale bi dëkk. yow xam nga xale bi yow. maa ngi koy bëgg a gëm nekkatoo liiru jàng waaw dama la doo ma wax xale bu xees yow fu mu yow xam nga ko xam naa ko yàlla na da nga a weddi fii nii sa digganteeg yàlla sa trayi bàmmel koor gi ngay woor yow yàlla déet déet déet dama la ndax bu maa dugal billahi sunoon góor la ma mbéj lii nga ma wax sunoon góor la ma mbéj waaye nag heureusement man ma dóor jigéen ah, non du ma dóor jigéen sax waaye sunoon góor la ba tey mbéj naa ko ndax lii nga ma wax da ngaa bëgg a tas sama kër ndax soo nee ma xale bu jigéen billahi wallahi taala tooñ nga ma yaa ngi may tooñ yaa ngi may yaa ngi may yaa ngi may tooñ su doon góor la mën ma dóor ko. non dama lay wax yaa ngi may tooñ ndax li nga wax dafa rëy. da ngay may takk ñaar ko for ci wéyu bëri. neen waa war a amul amul c'est pas vrai. dinaa takk nag waaye takkaguma. yaa ngi soo ko wax nag bul bul dàq gi daa wax. non takkaguma ah. mën ta ñàkk. man góor yàlla laa bàyyi faal laa waaye takkaguma. nee na bu mel ni sa xarit bi nag nga ne day tax bu ko buri ne huu mu dellu ginnaaw. Eh, eh. kooku bàyyi faal la sa yoon nekku ci moom génn ci mu génn ko ñu ne ko eh, katteeg ñappet kat tit ñett tit génn ko ci ah. kooku góor yàlla la bàyyi fal la bàyyi say ngay wax. bàyyi naa ko voilà bàyyi foofu kat tit ñett tit génn ko ci kooku. bu ko ci dugal bàyyi ko ci voilà bàyyi fal la voilà ok waaw. pare nga métti nga pare. pare nga. pare naa dama lay ah? tàggatoo baax waaw defal ndànk dama lay expliqué. damaa am sama jour boo xam dafa maa bëgg te yàlla tax dafa maa bëgg di ma sagoo te man ku ma bëgg ma bëgg la di ma tiitaroo voilà mu mu muy sama booy bi. laat borom Qatar ah, kii ah, nu mu tudd ah, nu mu tudd sama boy bi. Krépin Krépin Diatta. Krépin Diatta nekk ci équipe nationale yàlla na ko yàlla defal jàmm xale nga da nekk si yoon doxal Krépin ba kenn laal la maay sa mag te ku ma bëgg ma bëgg la da nga maa bëgg man maa la bëgg Krépin Diatta loo neex defal yaa tey. Krépin Diatta tubaarikàlla masalla ak xale yi nekk ci équipe nationale bépp yàlla na leen yàlla defal jàmm euh, attention ak Kara Mbodj Baye Fall bu mag boobu. nekk kooku Aliou la ko woo. baax na ci équipe bi suñu bëggee jël coupe nañ ko woo xale boo am na jom am na fulla et puis Baye Fall la defaluma dara et puis gis naa lañ defar wulli dama cee kontaan man bi may wax karambooj wulli waxul karambooj te man boobu ba ma koy wax intérêt taxul may wax intérêt peuple bee taxul may wax non non non non intérêt peuple bee tax may wax ndax xam nga du question affaire bi ay jox ay wax xam nga leen la coupe bi suñu sañoon day ñëw Sénégal te ñoom karambooj jour la te mi ngi al top dégg naa mi ngi al mi ngi toj Qatar dégg naa. waa léegi nag Aliou Cissé dafa woo dugal ko ci équipe bi man defaluma dara li ma gis laa wax barki Serigne Fallou Mbacké Krépin Diatta ngi nii nekk ci équipe nationale xale bu am jom am fulla ban may nuroo léegi moom te daf maa yëg dugub yi ma di keroog benn ko eh, waxaat ko ma dégg sama rakk la c'est mon frère. yow la te may isati ku ma bëgg ma bëgg la Krépin Diatta doxal ba kenn laal la yaay sama jour yow Krépin Diatta maa ko wax maa tey. Krépin Diatta doomu Casamance ji yàlla na yàlla defal jàmm Sénégal yàlla fi jàmm sax euh, géejaway gii ñu nekk yàlla na yàlla jàppale musal ñu saytaane ak làmmiñ te combat yu jub yi ñëpp yàlla may leen ndam muy xale ñoom guy gi ñoom Alioune Seye 2 ah booy ñoom Mathia ñoom Azi Pambaay ah, booy bële nu mu tudd Marley ci ah, ah, Pape Thiam 2 ah vraiment boo yi fi am combat yëpp yal na leen yàlla defal jàmm samay rakk lan ah, waaw ñoom ñoom ñëpp yal na leen yàlla defal jàmm ku ci am combat yal na nga daan voilà loolu laay wax di euh, kii Moussa le maire Sylla maa ngi koy gërëm di ko sant a doomu ndeyam Ndiak ah vraiment di da nag sama jàngi dama ci am ay sponsor Moussa Fall mhm. borom diwlin ci sama sàmm ak bi mais dana ma sponsoré Aziz ah, Aziz Ala Ndiaye nee na dina ci jàpp dina ma sponsoré borom euh, Zador atlan bi ak vermicelle spaghetti lépp Zador am na lépp sama doomu nday jéy seen tamit ñëw di ma sponsoré mooy borom euh, nu mu tudd libi ah, kii euh, fromage gruyère fromage fan yi moom laay lekk gisoo ni ma tee tee bi moom fromage gruyère bi doo koy jox ak ginaar ak ay ginaar ak yàpp bi. tubaarikàlla ak frite. ak frite bi yëpp ci jeexit xam nga man tubaarikàlla li mooy àdduna àdduna soo fi nekkee da ngay séq ñëpp jàmm séq ñëpp bëgg la taman noonu la demee ñëpp mu bëgg. di waa ah? Malado secrétaire baax yaay couture Modou Mbacke maa ngi koy gërëm di ko sant Malado tubaarikàlla la allah di nuyu waa police su Guédiawaye di leen gërëm ñoom ñëpp waa police bi. ah seen liggéey rafet na ci Guédiawaye gis naa ko waa police su Guédiawaye nuyu naa ñëpp ak waa Kaas Sapor ba ah? ak Moussa la maire Aliou Sall Sall Ngaar Bour Guède Lat Diop nag directeur LONASE gërëm naa ko sannaaw ak ak kii sama waa ji nekk mbuur Guède kii euh, président Mamour Kandji président Mamour Kandji gis naa taxawaay gis naa yëpp nuyu naa ñëpp góor naa ñëpp waa Leewtoo ci kaw ci kanam nuyu leen ma Aïda sama jigéen bu ñaaw ba ba nekk Leewtoo nuyu leen ma ko baax a baax ayda dégg nga. loolu liiru jaan la woon di ko kontaanee bu baax di ko jaajëfal. xalaat la am ni rek waaye xol bi dara nekkul ci vraiment borom bu baax la wóor na yàlla du tey rek moo tax ma koy wax xam naa ko bu baax ah, boo ko gisee muy wax da nga naan kii nu mel ni ndax xalaat gi demee na léegi nag ma c'est vrai am na bi accident bi fi defoon moo ko waaw am na ndox boobu dëkk caare gees man boobu loolu la wax naan non da ngeen koy comprendre bopp bi mooy yëngul ñàkk fayda day gees ba léegi mooy kooku dëkk caar mbër moom tur laay bañ a jaar bi ñàkk fayda ba bëgg a dee foo fekk mu yor morso naan day kii te yow koy musuwaat te naan nii te da ko téewal maa ko wax maa ko wax day gens day gens maa ko wax sëñ ma ko waxee moom bu yëkkatoo rek xalaat lay demee waaye xol bi doon nekk borom jàmm la maa koy kontaanee bu baax di jaajëfal ñu ma fekk fii ci place place bi den bëggee bu baax ñaaw rafet yi waaw dinaa tudd ki mooy Modou Mbacke baax yaay couture baax yaay couture voilà waaw tubaarikàlla macha allah ñaaw rek lay def ñaawal sama caméraman bi waaw dee leen ñaawal yéen ñëpp sa caméraman bu ñaawal bi xam naa ko fii tubaarikàlla macha loo bëgg a tax nag attention bi ñaawam adduna bi diaspora bi ñëpp foo nekk da ngay woote dugg ci internet bi tapé secrétaire bi ci ay malade ma eh, masàlla ngay jot rek moo wax ak yow foo nekk ñu fekk la ko indi la sa ñëw moom mooy def loolu baax yaay côté yàlla na ko yàlla defal jàmm maa ngi nuyu sama rakk ja ngañ demba ak xaadim seen madu say borom taw feex suñu sëriñ boobu suñu xarit boobu mën daal sama jàng yi woo naa ñëpp ku ñëwul nag mere naa la maa ah waaw waaw ñëpp ay ñëw ku ñëw na sa loxo ñëw doomu géejawaay moo woote bu wootee ñëpp ay daal mu ne maa géejawaay waaw mu ne maa géejawaay mu ngi noonu di ko jaajëfal bu baax moom liiru di jaajëfal ñu ma fekk ci place bi di jaajëfal sama caméraman di Mansour Fall du ma génn nag damay nuyu la famille Kébé ñi nga xam te ne ñoo ma doore su ma taxawee fii di wax ba fit jiili Kébé moo tax sama magu bopp boobu sama deret bi maa ngi koy gërëm di ko ñaanal jàmm ju bare bare bare di gërëm équipe technique lépp ñëpp cat ba cat ayda du ma la fàtte sama xeese booy boobu maa la bëgg sama biir xol séeréer bu rafet la vraiment ni mu rafetee ci biti noonu rafetee ci biir. tubaarikàlla macha allah yaay wax ku baax la yaay wax waaw bu nga cat ah, sama xarit la sama jigéen la d'accord waxal waxal waxal waxal dina leer léegi maa koy bëggee bu baax moom Aïda di kontaan ci moom sama séeréer bu ñaaw di sant di gërëm borom kër gi di Pape Thialis Faye dégg nga lii lu mu wax nee na nga yokk mise bi nga tegal sa tànk fa nga ko tegoon fa nga ko tegoon foofu la <laughs> noonu laay tàggatoo ak yéen leen jox di daje ëllëg ci Leewtoo avec Leewtoo ak Ndeye Mbacké ak beneen mbër beneen champion ñu daal di waxtaan ak moom jaajëf ba beneen yoon